décriral ma loo nga sol nii parce que garaaw na trop. waa li ma sol nii ay damaa ngi lay nuyu yow sama xarit bëgg ma ba mu jeex tàkk ma ma bëgg la ku ma bëgg na ma bàyyeek yow lii ma sol nii comme que dañ na barbe noire ma def yëfi poupée rek daal di jël lii payat la day taw yeeku da dox di danse nu la neex ngay tëlee. lii ñu jël ko ne nañ ko waaw jël ko rek gaaw sànni ko rek defal ma ko Mass Gaga waaw dëgg neexul def nii coiffé def ko blondu daal di ñëw ba nii rek sànni ko benn côté def yi fi jekk rek comme que loo nar tey loo nar tey <laughs> tey nag li ma nar tey dëgg neexul ki woote bu wet bu su wootee ñëpp teew Pape Diouf moom mu nga xamante ne dem Ñig ak Jóga Maay wala mi ci mbaaleen sama mag jooju xol bi amul daray crasse mbaa poussière te comme que damay séeréer ma ne naa ñëw rek dompat sa ci sot la bokk tey fii dana mel ni tufe jaan mbaa mbaxalu pom te ko sa bënn sañ ba réer dëgg neexul de fu ñu koy yeqee nag laa xamul te xam naa ne festival Teranga Sénégal nañ koy yeqee ca Paris dëgg neexul. Dieg <laughs> euh, Pire nga génne ko affaire bi def buum wax yi bari critiques yi bari mais nan nga ko dundee. Dieg <laughs> Pire daal gars yi jéeg ji jéeg jee jóg ne ñoom. ñoom daal dafa mel ni ñoom laa woyal disket yi jóg ni ñoom laa woyal ku ci nekk xam nga ku ci nekk sañ ngaa bàkku ne man jeeg pire laa sama ànd du fay am naa sarxataan am naa ko jëdda jeeg pire laa ma ma ci gërëm seen waa Sénégal ah, partout dans le monde diaspora bi koo gis mu ci ciy sinap jekk piir sa ànd dafay xam nga mu nekk loo xamante ni ça m'a touché lépp yit site internet yi la parce que ñoom ñoo jàpp te a bàyyi ba ñu néew ba tey newuñu noo lu jooy naa def ñu takk ci rëpp di leen ñaanal rek yal na yàlla yal na yàlla dooleel xale yi di sinap ñi sentir jéeg pire ñii lëmbalu vampire. lëmbalu vampire tamit <laughs> génne nga ko tamit indi coow ñii ñu naan waroo woon waaye loolu loolu kenn xamul amul signification oustaz yi di génn. waaw lëmbalu vampire daal mu ngi noonu vampire dafa nekk loo xamante ne ba ñuy xale ba tey ñu ngi koy seetaan ñu bëggante lool nag. duñu mat euh, ku ñu ku ñu bëggul te comme que ñoom dañoo bëggante te ñun bëggante bëgg bëgg nañu réewu Sénégal ñëpp bëggante ñu daal di koy wàccee rek mais danse bu bees la nag comme fecc yu bees yëpp ni muy xewee mën nga lëmbalu vampire ku jekku sa morom mat ar watama la kon sama kër law be yaa ngi may bëgg a ey xale bi yaay bandi dangay alofinti teg ci di bojo yaay kunkan xale bi yaay bandi mën nga lëmbalu vampire dëgg akay ah, waaye saxul ci man nga naan xale bi yaay bandi dangay alafin ti teg ci di bojo yaay kunka ndelo doxalam ter gugu ta gegit te ratagun ter gugu da rat ter gugu ta gegas ga suuy fu jar suuy suuy ke gi te xolam te rat ter gugu da xolam jar waaw jëlal lii ndelo yóbbu ko yóbbu ko sañoon ñëpp ay bëgg ci Sénégal moo waral lii rek xale yi di ci dem ak seen énergie na ñëpp kontaan. ba déstabiliser wu. non non non pourtant bari non non gars yi waxuñu ci dara ñoom dañoo jaaxle parce que ñu ne euh, lëmbalu golo pourquoi waxoo lëmbalu golo mais lëmbalu vampire ma leen mais lëmbalu vampire a neex di lëmbalu vampire a neex neex na gars yi nag wax dëgg yàlla te kontaan naa ci trop. kontaan bi war na de clip mu ngi waaj clip bi waaw ñu ngi koy waaj a tourné ñu ngi koy waaja a tourné di woo gaa yëpp nag képp kuy jeeg pire nanga nga daagu ñëw ci clip bi ku mën lëmbalu vampire it li ñuy naan am nga yoxub ndëgg ankay waaye saxul ci man ku ko mën ñëwal rek ñu gindaa mbatas ayul <laughs>